quel point certains hommes politiques sont sont cyniques. comment ça attends parce que Mamadou Mamadou am na ñoo xam ne gis naa leen ñuy défilé dem Ziguinchor bon encore que man. damay euh, gis défilé mais man seen image rek laay leen di gis image yi ñuy wane di ko wane mooy wàcc aéroport mais waaw man gisuma leneen man gisuma leneen ba pare deuxièmement ci ñu bëri ñoom bëgg rek bëgg rek yaakaar ni si ñoom ñoo yaakaar ni Ousmane Sonko jafe-jafe yu nekk du ci génn te bu ci génnul ñu donn électorat ànd bi sincère non non c'est pas cest pas c'est pas sain c'est pas bien il y a des choses Ousmane Sonko n'est pas en dehors du pays Ousmane Sonko n'est pas en détention yàgg na dem Ziguinchor kenn du ko fa fekki on est dans des ah, les autres leaders de